لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم mbokk jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla te ñaan ko mu julli ñu ci sangu-sang yi Seydina Muhammad nu ngi sant sunu ñaari wayjur di wax jërëjëf jaaraama jaraw lakk Mawlaaya Abul Abbas Seex Seyd Ahmad Tijaan Sarif waaye di ñaanal maam Ahmadul ak Sekk yal na yàlla yokk ay leeram tas si barkeem Euh, di ñaanal xalifa général bu cene ba sëriñ abdourahim Seck yal na yàlla oyofal yan bi yàlla na yàlla kàttanal ko yàlla na yàlla dooleel ko yal na yàlla dëgëral ko yàlla na yàlla defal ko ndam ci mission bi nga xamante ni bi euh, moo nekk ci loxoom waaye bala ñuy xuusandi ci waxtaan wi dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, di jaale ñépp ñi nga xamante ni ñoo ñoo ñuy seetaan à travers Shamsu bi waaye itam di ñu déglu fii nga xamante ni bi mooy daara soppe maam Ahmadou Ndack Seck telegram bi nga xamante ni bi jirim la yoo xamante ni bi ah wax dëgg yàlla ku nekk si daara soppe maam Ahmadou Ndack sekk fan yi gis nga ni telegram bi jirim la lu tax la xalif général de ba Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck moom moo wuy ji boroomam euh, alxamis bi passé euh, yàlla na yàlla yokk ay leeram taal si barkeem te ku ni telegram daara soppi ma Amadou Ndack Seck ni Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck ndax kayam la tolloom waaye tamit ci mbaaxam ginnaaw dogalu yàlla ci la telegram bi amee ndax ku nekk xam nga ni cene ba ni muy doxee mooy lépp looy def ah ndigal ci ndigal nga koy teg soo ci amee continuer ko soo si soo ko soo ko amul itam bàyyi ba am ko telegram bii bi ko mbokki xalaatee ñëw wax ko ko mu rafetlu ko lool Euh, ñuy doxal di doxal mu ñu si jàppale di ñuy dimbali ba suñu jonn yàlla tey ah ñu dem ba telegram bi miin ko lool bay Cheikh Ahmed Tidiane Seck ndax yaatoom bëgg ko lool bàyyi ko xel lool moom itam ka saalika euh, ku nekk yaakaaroon nga ni bay Cheikh Ahmed Tidiane Seck dafiy des ak ñun ba ci kanam waaye nag euh, jaam beeg pexeem jaam beeg nit jaam ak pexem yàlla ak dogalam lii moo neex yàlla bu ko defee rek euh, kullu nafsin sayxatul mawti tey itam euh, xalaxal mawti wala yaatu dunya loolu la alquran wax dee laa njëkk bind soo ko bind dund bu ko defee rek te ku ni ku xool bàyyi seex ay vidéom yi ngay seetaan xam ni bàyyi woon na ko xel lool kon ñi ngi koy jaalewaat ñépp ah bu ñu waxee euh, jaale nañ bàyyi seex ku gis jotaay bi yaakaar naa ni bala ñu lay présenté lan moo war a jotaay bi sa xel dina dem si loolu li waral jotaay bi mooy génn àdduna Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck xalifa général bu ba moo waral suñu tànk fii di Kër Baye Talla Xaar ñu fekk fi kenn ci doomam kenn ci njabootam di njabootu euh, Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck muy sëriñ aadama sekk mu Baye Talla Xaar euh, di koo xamante ne bi ku am taxawaay la nekkoon ci wetu Baye Cheikh Ahmed Tidiane euh, mu ko daan yónni fu bëri ñuy dajeeg moom fu bari waaye tamit ñuy ànd fu bari muy taxawu lii ne ci su lu rafet moom itam yaakaar naa ni lu ñu dal dal na ko mooy que ni ñun ñëpp yaakaaroon ni Baye Cheikh Ahmed Tidiane damagul waaye tamit loolu moo neex yàlla. looloo waral ñu ñëw fas yéene seq ak moom waxtaan woo xamante bi dañ koy jooyal ci ana kan moo nekkoon Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck juróom-ñaareelu xalifa moom Amary Ndack Seck waaye ana lan moo nekkoon dundinam ñu bàyyi xel bu baax a baax ñaar yooyu. kan moo nekkoon Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck xalifa général bu Thiénaba waaye tamit ana lan moo nekkoon dundinam Baye seex Ahmed Tidiane Seck. looloo waral suñu tànk fii ci sëriñ Adama Seck mu bàyyi taalaxaar loolu la ñu bëgg a waxtaane bu ko defee rek dañu jël kàddu ki jébbal ko kii nga xamante ni bii mooy sëriñ Adama Seck mu bàyyi taalaxaar mu wax ñu ana kan moo nekkoon Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck xalifa général bu Thiénaba waaye ana lan moo nekkoon dundinu Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf أصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين وعليكم السلام ورحمة الله على جمار من الله يتلو نيو في آه، نيو من دفوقك نيب وسامسو تي بي سين بيجي رفت أرسين تخواي آه، وعيدي كرم تمي تيمو وجايان تي بي سين بيجي رفت أرسين تخواي آه، دار سوفينا محمد ناسك تلغرام jëf sëriñ Ibrahima Diagne ñu maar Baye Cheikh Ahmad neex na waxtu ka kan mooy Baye Cheikh euh, sunu yaay Aïcha bi nit ñi yéemoo ci yonentu bi alayhi salaatu wasalaam ci ay jikkoom ak ay qualité ba tey ñu xool ni yonentu bi géej la وللبحر طعم ليس يدرك بالسبح جي امنا واخ مو خامني مول منت نور با عبد موي كين منت جيخال جي وال يونتو koy yonent bi moy alquran nga gis ni kon teunk na ci lepp foofa lañuy ñuy rek bàyyi Cheikh ahmed Tidiane moy alquran bi do dundam jëfam euh, leppam alquran doy na ci rek dakantal yu nga xamanteni bayam bàyyam tuddewu ko ko ndax bayam Cheikh Sidi ahmed Tidiane la ko tudde woon ñu dem ba ci biir ak farloom ak ak góorgóorlu ak jagle bu ko yàlla jagleel tax mu amaat waneen tuur borom alquran lu waral borom alquran mooy fu mu mës a toog rek lay waxtaan kon mënoon nañ koo tënk ci alquran alquran moo wax ni yonent bi kuntum xayra ummatin uxrijat ni lu tax yéen yéen a gën ci xeet ñu ñu génne leen ci nii lu tax ngeen gën def lu baax di ko digle bàyyi lu bon ak di ko di ko moytandiku loolu bàyyi loolu la moom maam Ibra Penda moo ko jur maam Ibra Penda maam Amari Ndaaw ko ne bàyyi Seex Ahmad nekk ñetteelu doomu maam Ibra Penda ci góor yàlla di ko di ko womat maam Momar Talla yóbbu ko daara ndax seen baay dafa teel nelaw maam Momar Talla ko def ko ni doom ju mu jural bopp dugal ko jàng eh, daara mu jàng Baye Cheikh nettali na ci boppam ni maam Momar Talla xotti na ci mbalaanam takkal ko ngir lan bëgg mu mucc bëgg mu mën alxuraan nga xam ni albaraka mag ñi dañoo ànd ak barke fu ñu toll barke ànd ak ñoom lu ñu def rek mu am barke mbalaana mooma mu xotti woon takkal ko ko musal na ko muccal na ko def na ci moom ak dëgër ba yàlla sol ci moom alxuraan mu jàng ba man alxuraan jàng xam-xam Cheikh ni mu yéeme nit ñi ci ci alquran ba ay borom yi xam-xam seede ko noonu la xam-xamam mel naxu wàllu naxu boo ci toogoon ak bàyyi sa grammaire moom yow dangay jàpp ni góor gi du la mën a daaneel ci benn fànn ci ci naxu waaye yor na ci ay takk ak ay tegtal yoo xamante ni moom bu ngeen ci waxtaanoon rek nga nga gën ko naw yooyu jonjoon nañ ci ak moom baneen bi ci desit mooy euh, téere yi sunu mag ñi téere yu luuxa yi nga xam ne mag ñi bind nañ boo demee ci ibnul muhayib noonu nga ci amewoon far man jonjoon naa ci moom waxtaan naa ci moom boo demee ci rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qadaa nahbahu wa nee na ci gaay yàlla yi góori yàlla yi am na ci jullit ñi ñoo xamante ni ay góori yàlla lañ ñoo xamante ni seeni cër la yàlla diglante woon ñoom lépp dëggal nañ ba pare seeni cër am ci ñoo xamante ni jël nañ ko ci tooli xare ya mooy ña demoon jaayanteeg sunu borom ci tooli xare ya bañ faat leen ومن ومنهم آه، آه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قدانا ويجي خمني جل من سيني كتير jaase lu mat fukki at ak ñaar fukki at yokk na ci ci zahir yokku ci ci bu ñu la limalee li fi sosu ci ay daaray alquranul karim ci biir xilaafa léegi na bari na lool li fi mokkal nag ci alquran ba ci ay jigéen mës ñoo takk benn yoon mu ñu mokkale noonu ci dëkk bi ci genn xalifa ci benn xilaafa kon mu mel ni am na lu ko yàlla jagleeloon ci alxuraanam jooju jàkka yi li fi tabaxu ci ay jàkka aju ci dëkk bi limu na lool fa tabaarakallah aj màkka xujaaj yi ci ak xilaafam limu na lool kon moom bu ñu ko doon tënk rek dañ naan moom alxuraan la woon buy dox nit ñi ñimeloo na leen boppam ñime nit ñi ba li mu bëgg a sol ci ñoom sol na ko ci ñoom te mooy xol bu ko defé rek eh, seigne ada eh, bëggoon nañ nga ñëwaatal ñu tuuti ci jaar-jaaru bay Cheikh amadou diane sek bu fekke man nga ñu ci baxé dara manam si yeen yoon la ko ay waajuram tegoon bu fekke amna loñ ci mëna baxé rek parce que dafa nek eh, ko xamanteni bi nit ñi comme ni ma ko waxee sànq rek néna yalla daf ñu nattu ko ñun bala ñuy gëssu nit dëgg wala bala ñuy xam nit ki dëgg mu won ñu ginaaw bay Cheikh amadou diane sek borom alcorane ba aduna ñëpp nangul ko ko seigne ada ndax man nga ñu wax yeen yoon la ko ay waajuram li ñu seexaat rek incha allah. waaw loolu bokk na sax ci sama wax léegi am na yu ma ci yu ma ci jur ñoom sama maam maam Ibra Penda moo leen jur maam Ibra Penda bi muy bi muy làqu taawam mooy bàyyi tey balaa seenu xaal bi toog xilaafa gi moom mooy toog xilaafa hmm? ndax ay atam eh, bàyyi mi nga xam ni mooy taawam ci góor juróom at la amoon bu bàyyam mi nga xam ni moo moo làqu ci jamono yee lu toll ci juróom benn weer ci ginnaaw dañoo wax ni loolu ñuy wax feral mm-hmm. suñ ko mënee wax dañ ko koo dañ ko koo defal mm-hmm. ak juma ji delsi mm-hmm. bàyyam laa kon kooku bu ñuy wax dañ naan daanaka sa xàmmewul waajuram kon ñoom ñépp maam ma wartaala lañ xam maam ma wartaala nag taxaw taxawaayu maam Ibra Penda bu doon dund ci doomam yooyu seen ñii ji canam way juróom wu góor moo yoroon Baye Cheikh Tidiane wax nañ mi sax góor googu wax na ko ndax gërëm Baye Cheikh ci ak ndawam jàmbaaram ak fitam ak nangoom mu yóbbu ko ba ca tool ya Cheikh Tidiane euh, donte ñetti fan la ko yilif xamal na mu doon ab ci kon yaakaar ah, naa nii mu mel sag ndaw la woon alifan nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakaza nujaba bu sëyr ak jaamu yàlla ak wéetal yàlla ci yonent bi te ba muy ndaw lañ ko la ko miinoon daal wa hakaza nujaba noona it ku nar baax ëllëg ca sag ndaw ngay ngay wane ay Cheikh Tidiane ci ak ndawam la doon wane ak ay siñam mm-hmm. jànge na fa mm-hmm. waaye jur jànge mbos eh, mm-hmm. ba yàlla def ci moom xam-xam mu dellu nag kaw la toog fa moo ko rakkam ja bàyyi Sëriñ Maxtaar Seck di fa jàngale yor fa daar di fa yere su su xew-xew amee ñu ñëw cene ba su jàllee ñu jàngale moo ko yóbbu woon la ci ndigalul nag sëñ Ibrahima eh, ndigalul eh, sëriñ Ibrahima Seck di seen mag mm-hmm. Mm-hmm. lañ fa toogi woon mm-hmm. eh, sëñ Ibrahima daan na jóg dem seeti leen toola dafa ñoom ab diir del si waat ñu ne fa di yare di tarbiya di jàngale bu xew-xew amee ñu ñëw moo tax ñoom Kaolack lañ bi ñu demee ba euh, mag dugg si bàyyoo seenu xaar toog ci xilaafa gi bàyyi Cheikh Tidiane nag xam ni magam yi nga xam ni moom moo war a sës ci wetam yanul ko lépp moo toog ci xilaafa gi kon sori ko gënul mu ñëw nag tuxu si ci nag di ko jàppale ci zahir ko jàppale ci zahir di ko jàppale ci baati mm-hmm. ba bàyyi seenu xaar génn àdduna di bàyyi seenu xaar génnee la mm-hmm. <coughs> ko mm-hmm. euh, defe naa noonu la bàyyi seen génn àdduna la ko mu ko wuutoo nag bàyyi seen nekkoon koo xamante ku dàggi woon xol yi la ci zikr moom moom xaalam zikr la wax doon wax naan zikkar leen seeni sikk dañ moo tax ci xaalam dafa dafa jës boobu xol yeeg arwaax yi xale yi bëgg jàkk bëgg tarixa bi waaw bëgg turu yàlla di zikkar pour wax la ni dara du hasard zikkar la daan wax seeni sikk dañ bi bàyyi si Ahmad Tijaan ñëwee ci ak mbaaxam yàlla génneloo ko xaal bi ñu war te mooy ku bëgg a sañse ku ne dangay sangu ba set ndekete lii raxas nit ba mu set mooy istigfaar waaye seex jotaay bu mu toog daal ni na saxoo astaxfirullah suñu aada dag ma la foofu démb si biir euh, telegram bi euh, dama dégg ku wax li suñu aada wax dama wóor ma ne suñu aada dégluwul dégluwul kàddu yooyu nee na euh, Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck Baye Ousseynou Xaar dafa ñëw fóot xol yi ba mu set wicc bàyyi si Ahmed Tidiane Seck ñëw pour def si xol yi xol yi nga xam ne bàyyi Ousseynou Xaar fóotoon na ko ba mu set wicc suñu aada loolu lu yëg da jàpp ni dañoo yëgoo ci baati wala ci saay waaw xam nga ruux yi ruux yi mm-hmm. yëpp ay yi dund yàlla yëpp ay connecté waaw fi ne bu fekkonte ne da am benn wifi nan la euh, wifi wala kii wifi boo ko taalee mm-hmm. ku am wifi rek boo ko boo ko boo connecté rek noonu la ruux yi dund yàlla nag waaw ñëpp yëpp waaw ba bàyyi si ama tijaan ni euh, zikkar leen astaxfirullah ñu ni ko lu ñuy ñaata lañ ci zikkar mu ni mille neuf cent quarante sept delloo ko ci limu astaxfirullah xam na ji xam gim xam jamono da cee bokk ci buy firi bàyyi ba Cheikh Matiyaan daan wax ni xam na ni jamono dafa ànd ak alal fi ne nii mu ni bu ngeen bëggee alal de mm-hmm. dee leen dee leen wax astaghfirullah 1947 bu yàggee boo ko defee ay fu mu toog mhm. daal ni astar daal ni dee mhm. bi ci des mooy ku bëggoon jàmm la xoolal mhm. su mësaan toog ci jotaay buy nuyoo assalaamu aleykum loolu ñëpp miin nañ ko ci moom daal ni daal ni loolu mooy jàmm nit ku ne boo jógee jàkkaarloog xëyee jàkkaarloog sa morom rek ñaanal ko jàmm mooy assalaamu aleykum yàlla na nga am jàmm mu ne nag te ngeen bàyyi salaamaaleykum mhm. nee na salaamaaleykum mooy yàlla bu jàmm ne ci yow kon kooku doon na boole nit ñi ci baatu lislaam bi te mooy salaam añam sax da ko daan fekk ci buntu kër mu koy bokkal nit ñi da daan gunge nit daan na ñëw sax bu nee la kii mooy xalif généralu Thiénaba da nga naan déedéet boo ko xamul daan na gunge nit def tànku neen du sol mbaxal woyof nga gis ni muy jàngalee ak tawaado mooy wàcc ak woyof man tawaadaa lillah rafaahu ku wàcc te yàlla tax rek yàlla yéegal war a yéeg na te dootul wàcc mu hmm? turam folote na ci àdduna hmm? turam folote na ndax jëfam ju rafet ak woyafam ak jàng